Brasil. دخول ختم زيزل الكيل ساتا زعمر مصطفى لآله لا لا لا لا Yeah.

sëñ bi addiya mhm. suñu borom ba mu ñuy bind mhm. awal lañu ci loxoy sëriñ seex Gaynde Fatma awal lañu ci loxo yi sëriñ Mouhamed Mbakke ñoom ñëpp dañ doon tàggat rek waaye jëmm ji rek moo taxoon ñu bind ñu kon ñoo ngi ñaan ngeen ñaanal ko li mu yéenee lëggéeyal sëriñ Touba suñu boroom defal ko ci lu kawe njortam ca defal ñu nag ak wér ndax ay jumtukaay loon loo xam ne nii jumtukaay bu diidee rek du mën a dagg kon ñoo ngi naan nanu sëriñ bi ñaanal ndax ñëw nañ ci barabu ñaanukaay bi bisum ñaanukaay bis boo xam ne bépp bis buy daw ci murit gi bis bii bu ko sëñ Modou Moustapha rate woon benn bis du am baa buy am du ame fii ci Touba kon dikk nañ ci bisum ñaanukaay dikk na nit jàkkaarloo jëmm joo xam ne boo nee sëriñ Touba ne Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ne see Ahmadul Maxtaar te Serigne Touba day waxoon na fala tuqasis faddala rabbin xat ala bisi taqaddumin faqat fa taj ala kon am nañ yaakaar ju wér ci ne la nekkoon ci Serigne Touba nekk ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba suñuy maam ak suñuy baay di ko fa sàkku ma ngi ci moom kon nag seeni ndongaa ngi nii seeni ndaw a ngi nii di sàkku ci yéen ñaan goo xam ne jëmewuñ ko fenn ngi lu dul liggéeyal ci Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal bu baax ñu ngi sant bu baax di la ñaanal sëriñ Maxtaar yàlla nañu fi yàgg fekk sëriñ bi yàgg nañoo booleeg yow te toujours yaa ngi yaatal yaa ngi rafetal kon loolu lépp liggéeyu sëñ Touba la boo xam ne yàlla na ko sëñ Touba nangu wasalaamu aleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum mbokki taalibe yépp noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ ahmadul muxtaar ibnu cheikh mouhamadul moustapha nekkal ko ci buntu këram bi sëñ ahmadul muxtaar nee na ba mu jiitalee ak cant ak ñaan mi ngi koy def ci njabootuk sëriñ Modou Moustapha gi mu jiite moy domam yi di serigne cheikh mbakke madina di xalifab serigne mbakke madina di serigne abdourahman di xalifab serigne cheikh mbakke gaynde fatma ak seen rak ñom ñep waye ci seed yi itam bayiwul ben seed bayiwul ben cheikh bu bok ci kër gi ak mbolem talube yep Ahmadou Mokhtar neena mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërem mi ngi leen di ñaanal neena waye rawati na nak li waral jataay bii ak jëf jii muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Mouhamed mi nga xam ni ba muy tàmbali lii wajuruma moo ko doon def démb rek wax naa leen ko fii ni sëriñ Xaadim Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha moom la sëñ Mbàkke soxna loo jëkk a wax ni sëriñ Cheikh Mbàkke Madina nan taxawu sunu wajur wii lépp lu war ci màggal gi nan ko ko defal mu bañ cee doon dara kooku sëñ Mbàkke ku jëkk a xalaat ba mu ko xalaatee sëñ Cheikh Mbàkke Madina nangul ko ko rakkam ja muy def lépp lu jëm ci ay xéewal moom mu gàdd ko di ko def ni ko yow defal lépp loo xam ne jëm na ci fur jëm na ci lu ñuy naan jëm na ci ndox muy saf suukar lépp sas naa la nga di ko def nu defal ko sëñ Modou Moustapha boobaak léegi ba sëriñ Mbàkke wàccu liggéey fekk àjjana sëñ Modou Moustapha sëñ Moustapha mii jël ko yal na fi yàgg te wér yal na yàlla àggale yéeneem ak bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal ba mu ko jëlee dama ni man mii de maa ko daan jiite ca tàmbali ba ci sëñ xaadim ak bisub tey bii man mii lañ daan jox may séddale ñam yii di taxawu taalibe yii loola ba bisub tey bii kon naa ni lu ak nam meloon yokk na ca moom sëñ mustafa lu bari yal na yokku te dolli ko yokk na ca loo xam ne ci rafetal yokk na ci loo xam ne ci baaxal musta am kenn mës koo gis ba bisub tey bii tey téeméeri boori la fi indi indi fi it ci wàllu lu ñuy naan ak lu ñuy jëriñoo loo xam ni màggal gi yëpp mën ñu ko jeexal mi ngi nii loolu mooy seere si kon sëñ Saaka Saar waxal nu mbooleem ñi nga xam ni ñooy taxawu liggéey boobu ni leen sëñ Amadou Muxtaar nee na xolom sedd na xelam dal na mu ngi sant Serigne Moustapha mi ngi koy ñaanal di ñaanal ak njabootam Yen ñi nga yen yen yéen koy taxawu di ko fi indi señ bi neena mi ngi leen di ñaanal seenu bëgg yen ko xam yalla ñu ko yalla defal di leen xamal ni nak li nga xamne mom la ci señ Cheikh wax legi lu jara japp la lu jara xam la bi señ Touba ñibbisee Touba ak bisub tey bi moy téméri at yu mat sëkk señ Touba ñibbisi ko Touba waaye ñibbisi Touba gi nak dafa am lu ci xew lu gatt moy Cheikh mustapha fitam nango jëfé ndigalam moo tax mu jële Serigne Touba njaareem indi ko Touba te Serigne Touba kat fu mu nekkoon ci kaw suuf lii xew Touba foofa lay xewee kon bu nu ko indilee ba tey lépp noo xam ne mi ngi nuy jariñ moo ko daf ca indi ba ndax dafa ko waxoon ni ko soo fexee ba yóbbu ma Touba te xaddamul lu ngeen bëgg ci àddina di ngeen ko am su loolu amul nag lu ngeen am na leen doy kon jërëjëf Cheikh Moustapha moom mi nu indil Serigne Touba Touba ba leen bëgg lépp nu mën ko am gannaaw loolu li sëñ Ahmadou Moukhtar wax moo di na ngeen rafet njort dala seeni xel xam ni fii ngeen di wut si li ngeen di wut si am na fi dinaañ leen ko jox kon ñëpp nañ bokk sant yàlla noo ngi leen di sant nun ñii mu yebal nuy ay ndawam di jottali ay kàddoom di leen xamal ni nun dongo yëpp maase nañu suñu xol sedd ci yéen ñii ndax lan seen jëf ak seen taxawaay ak seen pasteef yéen dongo yi yi nga xam ne yéen a indi teraanga ji kon loolu lañ doon gàttale rek ndax dafa xaw naaj waaye lim nu waxoon lépp ci nu jottali leen ko sax mënuñu koo jottali lépp waaye sëñ bi daal nee na xolam sedd na guy xelam dal na lool li ngeen bëgg ci sëriñ Touba di ko wut sëñ Modou Moustapha yàlla ngeen ko am ci barke sëñ Modou Moustapha dañoo wax ni sëñ Ahmadou Moustapha nee na ma naa leen jottali ni lii dongo yi ñoo ko def mooy lan jàng nañu téeméeri kaamil ak ñetti kaamil jàng nañu des bul xulóob 145 jàng nañu mu mooy bu naafiw 344 jàng nañu muxaddimaat 98 jàng nañu mimiya 83 jàng nañu wa kaana aqan alayna nasrul muminina 161 jàng nañu faatilu bisri 38 jàng nañu matlabul fawseyni 7 muy juróom-ñaar jàng nañu jaalibatul muraqib 37 salaatu ala nabi nañ ci 29200 xasida uxra jàng nañ ci 366 nooru daare ni jàng nañ ci huit muxaddimaat xidma jàng nañ ci cinq ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo indi añ bi Moustapha Dieng général Serigne Sarr Jasaaka mii dend ak man Serigne Cheikh Gajaga Serigne Cheikh Fall Yelli Serigne Kan Ndongo di journaliste Serigne Abdou Ñaan ñi ñu àndal ci soxna yi mooy soxna yëmu ñaan Taïf soxna ay sëtu Njuug Bayla soxna Ndawa Thiam Touba soxna Khady Mbaye Daaru Minan moo ànd ak ñoom indi añ bi ñoom soxna yi ak ak sëriñ sii kon sëriñ bi nee na gis na leen jox naa ko kayit bu jàngal na ko boppam ba mu àgg ni ma boo demee nga jottali leen ko kon yal na yàlla boole nu dimbali ci barke sëñ Modou Moustapha yal na yàlla faj aajo yi nii nu fi teewe it noo ngi doguwaat ci barke sëñ Modou Moustapha bu kenn manqué te seenu bëgg yal na ko yàlla defal jasakumullahu anna xeera bisimilah bisimilah min seytaan rajim lay rahmaan سرش افتح لي اليوم بالمختار سيدنا ابو بكر فتاه وهاب يا رسول يا ملك بركه برمتبا سيدنا مصطفى